Gracias.

moom xanaa moom moom dana dana wuy si man dana wuy si waaye si moom moom ndax ma dana dana waaye waaye siyaare wu ndax dana wuy si waaw waaw ndax loolu la ñu wax digalal te mu tax a màggee mu xaar ko moo jox digal bi nan ànd ak waa si mbëri mbedd yi wuy si ko ñu ne ñuy wax si mbëri mbedd ñu ne ci la bokk waaye nag jëriñ jàng jëriñ jàng dañ fàllu rek moo jëriñ fàllu mi mm-hmm. sëñ ma dem daal am di mbàkk fàllu sëñ ma dem daal dañ ko sëñ ma dem ñaan fàllu bara waaw ñii sëñ mbàkk fàllu moo dem daal waaw waaw ñii waaw waaw moom mooy waajur waaw waaw Saalum Bada zone dix waaw ñu naan ko sëñ sëñ Dame Soda. ñu naan ko sëñ Dame Soda. ñu doon ñu sëñ Modou Benda. Dame Soda Ndiaye mii. di daal di wala ñu koy seen jëli nuyu. waaw sëñ Dame ko yaa jot léegi ñu sëñ moom. waaw sëñ Cheikh Aliou. ah ana sëñ Cheikh Aliou. waaw sëñ Cheikh Aliou waaw sëñ Cheikh moom sëñ Modou Benda. waaw sëñ Cheikh Aliou. waaw sëñ Dame Soda. sëñ Dame Soda. Abdoulaye Fall mu sëriñ Cheikh Modou Mbenda ak sëriñ Cheikh Baye mu sëriñ Mbacke Modou ak sëriñ mu sëriñ Aliou mu sëriñ Mbacke Fall Modou Mbenda waaw maanaam sëñ sëñ Modou Mbenda moom fukki fukki doon taw bi waaw sëriñ sëriñ Cheikh Mbacke Fall moom moom moo si mujj waaye ñoom ñëpp seen i doom a ngi fi. ñun ñëpp seen njaboot yi. sëñ Dame Fall yi loolu sëñ Dame. waaw sëñ Dame. waaw Cheikh Modou Mbène ma doon taaw bi. waaw Serigne Talla Fall toppoon si. Serigne Serigne Serigne euh, Serigne am na ñii fi ne. moo si toppoon. waaw waaw Serigne am na. Serigne Cheikh moom mi ngi wàccoon quatre-vingt-six. Serigne Talla nekk ba 96 Serigne Amdi Fall ñii nag moo fi nekk booba ak léegi. waaw dañu ñaan yàgg ci lool Serigne Mbacke nag seen rakka woon moom it daa wàcc mooy wëjjuru sëñ sëñ sëñ sëñ Fallu mii waaw waaw. amoon na ku ñuy wax Serigne Abdoulaye Fall ak Serigne Ali Fall mi ne woon Mboobeen waaw ak Serigne Cheikh Mbacke ak ku ñuy wax Serigne Moustapha waaw Serigne Moustapha Fall waaw waaw ak Serigne Khalifa Fall moom moo toppoon ci Serigne Amdi moom it dafa wàcc waaw ak Serigne Gunda. waaw Serigne Gunda. waaw loolu moom dama di ko moom si exemple di yor yor moo woo. Serigne am di nag fi des. mook Serigne Moustapha. waaw moom moom moo fi ni ñi ñi ñi ñëw ak njabootam di ay jëw di ñëw. waaw waaw. léegi léegi waaw dina am liggéey liggéey na seen bopp liggéey boo xam ne cérébral bi yéen liggéey gën a wóoree waaye nag na ma leen fay bor moom yàlla lu ku mën ku mën ku mën lépp la waaye fay fay bor yi dàq parce que dafa laajte ñii di si tuwaat yi maanaam bu mu jàpp booy mu jàpp naa ko. donc saa bi suñu daje kër say saa yu bàcc mel ne boobu jëloon seen bay jaxate daa nekkoon ci si mu daa waaw yóbbu ko say saa yu waaw réew si daaru la day digal barke li ma tax a ñëw mooy fii nga nekkee seen tubaab kii moom fi seen may jaxate te kii war na nekk dana ko lu gannaaw seen tubaab ñu mën la nekkoon nag dama la ko jëmbalaat nag si seen tubaab waaw loolu Ibrahima Mbacke tey loolu def day seen numéro benn bi nga xam ne doomu seen numéro benn daal te doon seerafaat tey yéen a ko suuf fokk na jëppal ko seen tubaab yi mu lay ñëw xam ne Cheikh Ibrahima mënut na ci genn ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa kon nag muy jubati ko ci kër Sëriñ Tuubaa bii ñu boole ko kër Sëriñ Tuubaa yëpp yëlif mm-hmm. muy Cheikh Ibrahima ne Sëriñ Tuubaa loolu nag la boole ñu wax dem bii ak ndaw yi ne noonu ñu wax yow mm-hmm. nga xamal ne na mm-hmm. loolu yi vraiment digle neexal kër Sëriñ Tuubaa yëpp jàpp ko ko yéen jëfe itam ñu ngi déglu sa ndigal déglu ndigalam ndigal ñooy moom rek bu ñu waxee kër Ba rek nu ko nu ko bëgg bu doon yéene baax. ñu ñaan nga yàgg lool te nu ko wax milliards yi ay ruu waaye nag. suñu milliards yi milliards yi ruu. su gerte gi nu. boo ko bëggee sonal yàgg di déglu. amiin amiin amiin sax la bëgg la yàgg bëgg bëgg la yàgg rek. moom bëgg yàgg dafa yàgg. daal sëñ Tuubaa bëgg la te mu yëpp bëgg nañ. Mhm. parce que soo ko bëggee loolu la bëgg la yàgg di déglu loolu rek. ba service man bii nga yàgg nañ lu bëree bëree bëree bëri. te naaj yi nga naan bu la gën a àggal nga àggal naaj yëpp. Mhm, amiin njaboot gi nag noo ñaan nga dimbalul nag. Mhm. ñaanal moom mun na ñaan dara yàlla ci rek lañ naan ko yàgg sëñ Tuubaa kon ñaanal nu ba am ndox seytaane na mucc njaboot gi. amiin dafa yor nangu. seen ñooy day a kawe lool. sa xol yi dara ba jaay lu rëy. te man am ci man man am ci man boo xam ne moom noo ko bëggee daan ngay mane. ndax suñu jàngoro yëpp daal li ñu gën a métti mooy li nga bëgg a demoon dara dalul. waaye bu mënul li nga bëgg a dara woo. Mm. waaye su ma nee li nga bëgg a dara kon ñaan nu mën nu mën li nga bëgg yàgg na ñaan ko ci islam jëpp ak jullit yëpp mën a jëppal parce que ñii indi ji koo jamono lañ joxoon ndaw la lu ñu yoon ji a àdduna ci nu gën a gaawee wàcc jullit yëpp mën a jëppal kon ñu am jàmm mën nañ liggéeyal seen tubaab bu baax waaw liggéey bi nga ñu naan ñoom dañuy noonu ne soirée yi. nañu fàgge tubaab. ñu ne góor a ñu koy liggéey ba. waaye ñu leeral lañ déggee coobare naa borom yi waaw. da nga kon xam naa loolu moom ah non gis nga digal rek. ñu digal ñëwee rek ñu jàpp ko si. waaw. مم. Değilsin. Yakın diyen. Yakın diyen. Yakın diyen. Yakın diyen. la ñaareel nag. taxaw seen lépp yombal leen ko. gën a yombal rek. ku yéene ku wute noonu la. ngeen ko ngeen amee bëgg ko noonu. ngeen bu baax a baax teewlu sëriñ bi rek. baax a baax a baax sant wala ñoom ñëpp ñoom soxal ñoom ñoom dafa di ñëw waaye dañuy soxal mooy mooy trop waaye waajur bu baaxoon rek dinañ ko dakkal liggéey ñaan sa yow li mu war a def loolu lañ ko wéy waaye dañoo soxal mooy trop ñoom ñaan nga sax ci ñoom sax ñoom ñaan ndax borom wéral ko yekkal ko fi ba lii maam yi teg mu koy liggéeyal say tubaab mu ne kon koy jëlee

la ilaha illa Allah wa wa la ilaha إله إلا لا لا إله إلا لا باي باي لا إله إلا لا لا إله